stratégie mu nekk ay stratégie yu am solo yi nga xamante ne bi ñu koy tàmbalee élaboré boobu ba léegi 2018 la ba léegi donc mat na sa at mais dañu bëggoon vraiment ñu càmbar ko bu baax Euh, dem nañ ci région yi 13 régions yi ak capitale région Dakar tamit dem nañ rencontrer ay acteurs euh, lu ëpp ci 800 acteurs jot nañ leen a rencontrer mu nekk ay stratégie yu am solo ndax économie Sénégal dafa nekk euh, lu mel ni service daf ci am pàcc bu am solo ndax téeméer boo jël juróom fukki ak benn mu ngi jóge ci secteur service te tey tamit gis nañ ni. Euh, boo jëlee ci UEMOA donc Sénégal am ci wàllum exportation de service Sénégal jël na 30 pour cent par de marché bi donc loolu buñ ko amee te ñu jëm ci zone de libre échange continentale africaine dafay jaadu suñu dëkk euh, mu élaborer ay stratégie yoo xamante dina tax acteur yooyu ñu gën a mën a euh, yokk seen koom fii ci dëkk bi waaye tamit ci UEMOA waaye tamit ci continent africain looloo waral ñu élaborer stratégie commerce euh, sur les services commerce électronique ñëpp xam nañ ni léegi euh, technologie de l'information et de la communication dugal na euh, loo xamante ne dafa changer un peu mode def commerce ndax da ngay gis léegi sax ni njënd ak njaay bi yëpp ñu koy def léegi ci internet ñu ngi koy kii ci réseaux sociaux yi donc loolu tamit dafay laaj

bu ñu fàttee suñu marché national bi donc dina tax ñu gën a mën a am interconnexion marché yi tamit waaw ñu ngi koy xaaran ñu ngi ñu ngi ciy xaar lu toll ci trente cinq mille emplois ci loolu ñu ñu ngi dina jóge ci application stratégie vingt vingt cinq Sénégal numérique vingt vingt cinq waaye aussi ci euh, stratégie yi nga xamante ne ñu ngi koy lancé donc te dina nekk ay emplois yoo xam ne dafay adapté ci demande bi tey ndax euh, tey jii ñii ñii lépp ñi gën a demander emploi ñu ngi constitué wu de jeune te jeunes yi dafay am emploi yoo xamante ne ñoom ñooy adopté si ñoom seen environnement surtout ko léegi gis nañ ni lépp a ngi ci service lépp ci xam-xam ñu ngi nekk ci économie boo xamante ne xam-xam moo koy doxal mu nekk économie boo xamante ne tamit commerce électronique daf ci am solo donc boo ko indilee euh, jeunes yi day nokk non seulement ay emploi structurant waaye mu nekk loo xamante ne ñoom dinañ ko bëgg te mu nekk loo xamante ne dina mën a nekk